waaw man da euh, sant yàlla sant yàlla man euh, damay def rek sama liggéey rek après ñooñ ma kii toppatoo marketing bi fa fële nga xam ni moom moo di ci fédération sénégalaise de football dafa doon woo di ma woo di insister après ma wuy ko mu ne ma FIFA ñoo bëggoon am sa adresse mail dañoo bëgg liggéey ak yow ma ne ko waa jox leen après ñu jox mu jox leen ko après ñu bind ma et tout ça wax ni dañoo bëgg vraiment ma ñëw foofa ca coupe du monde ba euh, bokk ci ñi nga xam ne ñooy waxal euh, FIFA ak ñooy waxal équipe nationale bu Sénégal. Mhm. tanef bi xawmako xawmako ko ko ma dama ji xaw ko vraiment mënu la wax ni tanef bi ni la demee wala ni la demee euh, dal, man daal toog naa ñu woo dima won ñumay wër dal ñumay wër donc euh, sante yalla et vraiment te damay def sama liguey rek. Mhm. na def nako ko euh, ak Youssou Ndour à Bercy de 2000 à 2017 diko ko présentel euh def États-Unis def naa Afrique du Sud def naa ko feneen ak fenen ak euh, donc def naa fu ci aduna bi donc euh, voilà dañuy démat rek dem liguey rek ci touru Sénégal ci drapeau Sénégal ñu wat ci yar ak yiw ak teggin ak def lu bax ak wax lu baax. Mm-hmm. ay fan rek dess ci coupe du monde bi ndax am nga ben aperçu programme bi naka la nar a demee foofu waaw ñoom nag euh, wax nañu boo ñëwee wax yónni nañu seen bi avion wax boo yegsee naka ngay def boo ñoom ñoo lay jël si aéroport ñoo lay yóbbu fi nga xam ne fa ngay dëkk euh, premier jour bi lan ngay def deuxième jour bi lan ngay def ouverture bi lan ngay def jouru match Sénégal lan ngay def vraiment am nañ programme bu leer boo xam ni euh, vraiment teg nañ ko programme bu leer boo xam ni teg nañ ko donc voilà quoi man damay dem rek def li nga xam ni moom laa war def et puis dellu si waat quoi. Boubacar on imagine que am nga sentiment de fierté gannaaw bi nga xamanteni ni Sénégal war dem foofu la egg nañ sax foofu la ca Qatar yow doomu Sénégal nga nara dem fofu non la nan ngay dénk Sénégalais ak sentiment bi nga am. waaw li ma leen di denk rek mooy nañu gën a ñaanal équipe nationale bu Sénégal nañu gën a ñaanal équipe nationale bu Sénégal euh, gën ko ñaanal tamit Sadio Mané mu wér. Euh, ñaanal équipe nationale bu Sénégal ñaanal Aliou Cissé ci ci li xam ni moom la sumb euh, ñaanal Aliou Cissé ci li nga xam ni moom la sumb ñaanal équipe sénégalais yëpp ñu bokkoo gis nga ni ñu boole woon suñu xol ci Coupe d'Afrique bi buñ ko gënee booloo rek Ah, teg suñuy këral fële lépp ci kanam lay lépp ci kanam la jëm inshallah allah lépp ci kanam la jëm et puis yàlla nako ko nako yalla yalla yalla yàlla yàlla quoi et na ku nekk ñaan euh Sénégal sori ci yëf yi Sénégal am ci doole Sénégal gën ci siggi hein et siggil Afrique yëpp quoi Sénégal bu siggee Afrique yëpp lay siggil et puis yëpp jëm ci kanam quoi. euh lan ngay wax partenaire yi parce que duñu jeexal itamit bakkar sans wax ci partenaire u ITV E-Media euh, par rapport ak coupe du monde bi. waaw partenaire yi euh, dañuy dañuy de toute façon l'igué bi dañ koy continuer euh, xorom ci Fatou Waré damay à partir de Doha Nous mu nek fi. ñuy ñuy defando yëf ñuy defando donc euh, ñuy ñun continuer di liguey normal euh, les euh, on a pris les dispositions techniques ba lépp lu def On rek dama koy defé fofu dañ koy def jaar ci yoon nek ci yoon euh, bu kenn jaxlé hein ah, ma ngi fi képp la normal parce que technologie bi mayee na technologie bi nga nek di quoi mais on va dañuy dem rek def liggéey bi rek choses. voilà yefu yefu yefu la quoi